asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam di am mbégte lool teew fii ci marché HLM mi nga xam ne mooy ndarket kepp bi ñu nekk di def depuis bërki démb démb ak tey programme boobu ñuy wax programme d'appui aux commerçants des marchés de la région de Dakar tàmbalee nañ ko Pikine jaar Géejawaay mottali ko démb Tëngéej dem Kër Massar tey ñu ñëw fii biir Dakar di ko fi tëjee bi ñu ñëwee Dakar nag dañu ne nañu ñëw HLM ñu defee ko fi ñu bëgg ci lool ndax marché bi marché bu ñu miin la HLM foog naa ñëpp xam nañ ko am na ku ko wax sànq bëri na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci même cadre kon ñu ngi am mbégte lool teew fii tey dinaa waxtaan ak yéen ci li ma bëgg wax ci kàllaama olof bu ma paree ngeen may ma tuuti ma def résumé bi ci français pour que aussi suñu mbokk presse bi mën a jël seen liggéey kon maa ngi nuyu bu baax sous-préfet arrondissement Grand Dakar monsieur Mouhamadou Mbacké Fall ñuy rafetlu bu baax taxawaayam ci arrondissement bi ak yitte bi mu am ci arrondissement bi ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi def maa ngi nuyu aussi kilifa yi fi teew yëpp ràññee nañ ci monsieur Ousmane Touré bi nga xam ne wax na léegi notable yi aussi ñi ngi fi tudd nañ fi sànq doyen Talla Thioub mais maa ngi surtout nuyu suñu doyen président Ascodem le doyen Mbaye Ndiaye maa ngi nuyu aussi secrétaire général bi sëñ Amar Amar Baara maa koy nuyu di nuyu ñi fi jël kàddu yépp te nga xam ne ñi ngi koy tàmbalee suñu papa suñu xarit suñu kilifa nekk kenn ci président Macky Sall muy le doyen Daouda Dia maa ngi nuyu aussi soxna Aysatu Masali bi nga xam ne wax na ci turu jigéen ñi di nuyu présidente Ami Diouf également bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ànd wax di nuyu monsieur Aziz Sakho bi nga xam ne moom mooy PCA mutuelle commerçant wu HLM yi te mu wax ci turu mutuelle yi ñuy accompagner pour le département de Dakar ci programme bi maa ngi nuyu aussi ñi ma àndal ci ministère bi yépp sama collaborateur yi nga xam ne ñoo ànd directeur de cabinet bi mi ngi fi directeur de la microfinance mi ngi fi directeur bi nga xam ne ci service am yi la ñu jaaralee liggéey bi ñuy def muy fonds d'impulsion de la microfinance aussi mi ngi fi muy monsieur Ndiambe Ndiaye maa ngi nuyu aussi beneen directrice bu nekk ci ministère bi mais nekk doomu HLM dëkk fii ànd ak ñun ci liggéey bi muy la directrice Fatoumata Gueye Diouf di nuyu chargé de mission yi conseiller technique yi ñëpp vraiment ànd nañ ci ndoor ñëw tey fii ci HLM maa ngi nuyu aussi euh, soxna joosi si di euh, ñaanal ñi ñu jiitu ji ñëpp ma ciy seet bi imam Sarr xam ne vraiment mënuñu ñëw ba HLM te duñ ko tudd moom tamit ñoom ñëpp ak sama way waajur ak ñi jiitu ji ñëpp yàlla na leen sunu boroom xare àjjana te mu taas ñu ci seen barke euh, leneen li nga xam ne aussi dinaa ko beral nuyoo nag balaa may dugg ci waxtaan bi mooy waa marché liberté kooku moom mu tee naa ndax yooyu sama marché waa marché liberté six a ngi fii waa extension baraka ñi ngi fii yéen nag beral naa leen nuyoo mais na ngeen xam ne bu ma leen beralee nuyoo yeneen marché yëpp a ci biir bu ma bu ma nuyoo bu ma nuyoo waa liberté dama leen beral loxo rek ndax ñoo bokk dëkk waaye yeneen marché yépp a ngi fi ndax ngelaw 1 mi ngi fi ngelaw 2 mi ngi fi wakaam salañ salañ mi ngi fi arafat bu Grand Yoff mi ngi fi Hann Bel-Air mi ngi fi Grand Médine mi ngi fi Colobane mi ngi fi Mbabas mi ngi fi marché Padois Buldeuse mi ngi fi Hann Village aussi mi ngi fi Jàmmalaay Padois mingi fi marché Grand Yoff mi ngi fi unité 17 mi ngi fi Soumbédioune mi fi Castor mi ngi fi marché Dior mi fi Yoff mi fi Ngor mi ngi fi ak marché Gueule Tapée Rebeuss mi ngi fi unité 1 mi ngi fi centre commercial Mame Limamou Laye mi ngi fi waa marché Grand Dakar mi ngi fi waa marché Tilène waa marché Kermel ma waa Cambérène ak Félix Eboué ñooñu ñëpp a ci biir 32 yi ñu enquêté am na ñaar wala ñetti marché yoo xam ne déggu leen bokk na ci ak Petersen marché yooyu dañ leen a jotul enquête ndax bi ñu tàmbalee enquête bi am na ku ko wax sànq liggéey bi depuis daaw la commencé ñuy sant di gërëm délégué de marché yi ndax délégué marché yi dañu def taxawaay bu am solo ci liggéey bi ñuy door a tàmbali dañuy def assemblée générale ak ñoom plus de deux cent cinquante délégués ñoo ñëw keroog ñu toog waxtaan ci programme bi naka lañ koy tëralee naka lañ ko war a doxalee gannaaw ba ñu defee enquête yi ba pare enquête yooyu lu tax mu am solo ci suñu liggéey mooy kilifa bu la wóoloo tànn la ci say biir moroom jox la liggéey bu ko soxal lool boo koy def nang ca def lam la sant boo ciy def lam la sant nag si def jom def si pas-pas te président Macky Sall moom mu yëkkati ministère lamu jagleel leen ko kon secteur bi yitteel kon liggéey bu ñu ci sant dañ ko war a jaarale yoon moo financement yi bi mu amee yéene ne dama bëgg li ñuy woowee acteur de l'économie sociale et solidaire maanaam ñu mel ni yéen ñenn ñi nekk ci secteur informel bi ne ñenn ñi nekk ci commerce bi ñeneen ñi nekk ci lu mel ni ay associa ay association ay coopérative ay mutuelle dafa ni ñooñu ñëpp dama bëgg ni ñuy jàppale secteur yooyu yëpp ñu jàppale leen anam boo xam ne bu seen liggéey bu leen doon jox benn ak ñaar dala leen jox fukk mu ne loolu pour mu am damay jël ministère lëmm jagleel leen ko lu bokk la yeneen ministères yi nga xam ne ñu ngi liggéey seen liggéey kon bu ñu waxee loolu bëgg nañ li ñuy liggéey ci programme bi mu wóor ñu ne dina dal délégué dina dal commerçant moo tax ñu ne dañuy jaar ci délégué donc bi ñu defee enquête yi ba pare am na nag marché yoo xam ne bi ñu fa demee dañu ne enquêteurs yi duñu dugg mais bu ñu enquête xam ñan ñoo nekk foofu di fa jaay bu ñuy financé mën nañ financé ku ñu ne mbubboo seen turu marché te fekk du ñu fa ne ñoom ñoo jot financement moo tax tey amul kenn koo xam ne yaa ngi ci marché bu ñu paree ñu jël ne yow dañ lay financer dañ koy xool ci base de données bi boo fa amul taabu duñ la jot ndax président daf ñu ne yéen a moom financement bi kon yéen a jot looloo tax marché yi nga xam ne enquête ñu leen donte bu leen joxul ci première phase du financement bi nañu xam ne dinañ yónniwaat enquêteurs yi ñu dugg fa def enquête yi ngir ñu mën a am base de données boo xam ne ëllëg ak si biir lépp lu ñuy def dina tegu ca ñam loxo ñamu war a tegu kon ñooñu nga xam ne tudd ñu leen fii maa ngi dalal seen xel bu ñu génnee ci tabaski bi incha allah rek ñu daal di def liggéey boobu nu mu gën a gaawee ñu mottali parce que su doon suñu sago marché yëpp la ñuy jox donc tey 32 marché yi moom yii ñu tudd dinañ jot seen financement ñi si des ñu def phase de euh, d'identification bi et très rapidement ñu def li topp ci liggéey bi délégué yi nag bi ñu gisee dinaa leen seedeel li ñu def ndax bi ñuy commencé dañ leen wax est-ce que commencé département de Dakar financement bi après ñu continuer ci yeneen département yi mais président Mbaye Ndiaye moom ak SG ak euh, Soxna Ami dañu yóbbu ci saa si ne ma bu dee loolu nañu bàyyi ba mu dajal ñëpp rek loolu day baax ñu seedeel leen ne aussi ña ngeen yónni manoon nañu moo tax bi ñu waxee loolu ñu ne kon dinañ créer comité technique ci biir assemblée général tànn ci lu tolloo fukki personne fukki nit ak juróom ay délégué ñoom ñoo toog ñu waxtaan ci répartition bi waxtaan ci identification bi waxtaan ci yan taux la ñu mën a def ba nga xam ne dina dëppoo dina doon ndimbal loolu yëpp ñu defandoor ko ensemble tënk ko tey 350 millions yi nga xam ne président jagleel na ko mboolem marché yi nekk Dakar amul apport amul garantie amul frais de dossier te taux d'intérêt bi loolu ku ko def bëgg na la pousse nga liggéey mu teg ci ne financement yi dañ koy def par grade marché bu nekk. dinañ la jox montant boo xam ne dañ koy ñi kay cautionné mooy bureau délégué mën na nekk quatre walla cinq personnes ñooñu bu ñu ñëwee xool ci seen biir ñi gën a soxla wala ñi bëgg lu leen gën a puus wala ñi amewul bor yu bari ñu boole ne nañu jëkk jox ñii li tax nag lii may wax ma wax ko mooy sànq dafa am ñu fi ñëw ci parole bi ci ñi doon wax ne nañu góorgóorlu xam nga tey 350 millions la ñu indi te cinquante millions yooyu ñu indi pour département de Dakar bi 32 marchés yi bokkul ak yeneen 200 millions yoo xam ne def nañ ko pour yeneen acteur économiques yi surtout pour la tranche jeune yooyu yëpp ndimbal la yoo xam ne dañu bëgg puus nii mais li tax loolu gën a am solo mooy. mën nañ fi toogaat déwén PCA bi moo ko doon wax déwén mën nañ ñëw fii ne un milliard yëpp mën nañ ko dugal ci marché yi ne département de Dakar parce que day fekk su boobaa ni ñu ñëpp jox bu ñu remboursé ci waxtu ba ñu war a remboursé dañuy daal di constituer capital mu gën a yaatu su gën yaatu nit ñi ñu gën leen mën a jox te lu tax loolu aussi am solo président neewul nañu ñëw indi ligne financement rek jox leen ku ne dem dafa tënk loi président dafa promulguer loi loi bu ñuy wax loi relative à l'économie sociale et solidaire li mu namu ci loi boobu mooy li ñu wax sànq nee nañ bëgg nañu opérateurs yi ñu formaliser leen bëgg nañ ñu jox leen formation bëgg nañ ñu jox leen encadrement door leen di indil financement loolu yëpp président daf ko tënk ci loi économie sociale et solidaire ñu créer ay jumtuwaay yoo xam ne fii yëpp ay weer danañu lancer programme bi nga xam ne kenn ku ne danañ ko wan naka lay duggee ci biir plateforme bi ñuy teg mais surtout yan yoon la mën a jaar ba formaliser liggéeyam boo xam ne état dina xam mooy kan parce que tey pour état bi gën leen mën a jàppale foog mu xam ki muy jàppale nu mu tudd fu mu sant nu mu sant ak fu mu dëkk nit ku xamul foo dëkk xamul ci lan pour mu dimbale la day jafe mais loolu yëpp nag encadrement bi ak formalisation bi jaarale nañ ko ci programme boo xam ne ministère bi dina ci ñëw te programme boobu bu ñëwee loi boobu li tax mu am solo dafa am avantage yu bari mais damay jukki ñaari avantage yu loi bi am premier avantage bi mooy protection sociale day am su fekkee ne acteur économie sociale et solidaire la fexe ba am sa agrément ndax kuy wuyoo acteur de l' économie sociale et solidaire dañ lay jox carte agrément carte agrément boobu pour nga am ko dafa am yoon yooyu jaar danañ leen ko wax boo demee ba jaar ci yoon yooyu yëpp ba mu mag protection sociale da nga ci am taxawaay loolu mooy benn beneen lu kii bi avantage bi mooy ci wàllu fiscalité parce que bëri na ñu nekk ci informel bi dañuy xaw a daw fiscalité boobu mais dinañ ko dëgg-dëgg boo xam ne lépp nit ñi di dugal day mel ni denc boo amal sa bopp kon yooyu yëpp dinañ ci àndandoon dox ko liggéey ko ba nga xam ne avantage yi nekk ci loi bi kenn ku ne dana mën a dal sa kaw wax nañ ko sànq jamono ji ak àdduna bi mi ngi dox dox boo xam ne kenn ku nekk da nga war a sécuriser sa bopp sécuriser sa alal rawatina nag bu fekkee ne am nga état boo xam ne jàpp na nag kenn ku ne mënoo ko defal lu méngoo ak kenn kenn ci ñun mais am na lu mel ni économie sociale et solidaire loo xam ne mën na ko def kon loolu moo tax programme bi ñuy def am solo mu nekk tàmbali bu jaar ci seeni loxo te président Mbaye Ndiaye bi mu ñëwee keroog moom ak ñi mu àndaloon yépp ndax bari na nag ñoom ñépp a ngi fi ma leen mais fàttewuma leen ñoom ñépp remercier naa leen parce que ñu bari ci laa leen xamee jóge nañu ci marché yu ne am na ñu ma fiy gis fii lim ñu wax mooy ñun wutuñu ku ñu may président yaakaar naa loolu nga ma keroog bi ñu ñëwee dafa ne wutuñu ku ñu may parce que ñun li ñu xam mooy ñàkk jariñ dañuy liggéey lebal leen ci anam bu jaar yoon ñu liggéey fay kon te mu gaaw waaw gaaw bi moom wax nañ ko may wax nag bu yéexee ci yéen la parce que ñeenti mutuelle yi ñu àndal fii juróom ci programme mu marché de Dakar bi mooy mutuelu HLM bi wax nañ ko ak mutuelu femme Grand Yoff yi ak mutuelu femme Wakaam yi ak FONES mutuelle yooyu la ñuy àndal ci liggéey bi te ñooñu li leen wax mooy bureau délégué yi en principe depuis bërki démb war nañ commencé di ubbi compte yi nga xam ne foofu la ñu war a yaakaar naa président Amina est moom jot na commencé ubbi président au niveau des HLM est-ce que jot ngeen commencé ubbi ay compte commencé donc il faut qu'on rapidement directeur voilà il faut qu'on rapidement parce que liñ ci bëgg mooy doonte su dee ñetti wala ñetti fan avant tabaski bu am lu commencé dugg gën a mën a jàppale commerçant yi ci liggéey kon vraiment nañu gaaw ci loolu parce que ñun def nañ li ñu waroon def yëpp dañu génnee bureau yi man ne nii suba du toog ci loolu laay dox ba nit ñi ubbi compte yi ñu mën a biire euh, xaalis bi nga xam ne dina war a mën a jàpp aussi ci préparatif tabaski kon daal ci gàttal programme bii ñu indi dafa contribuer ci luy dëgëral inclusion financière ak sociale inclusion financière ak social nag bu ma ko doon jéem a tënk rek mooy képp ku nekk ci réew mi mën a liggéey lu bokk ci tabax réew mi loolu nag ci seen loxo la ne ci suñu loxo la ne waaye surtout ci loxo président Macky te yaakaar naa def na ci jéego yu am solo kon suñu bësu tey bi bëgg nañ ci lool kontaan nañ ci lool bu ci kanamee dinañu woo délégué yi ak kenn ku nekk lañ ko jagleel li ci des nag mooy dinañu évaluer programme bi ànd ceeg yéen bu ñu paree ba jox marché département yëpp juróomi département yëpp nga xam ne bu ñu xaymaa liñ ci dugal un milliard tey amul benn marché région de Dakar moo xam marché yu ne Tëngéej mbaa Pikine mbaa Kër Massar mbaa Dakar fii à yi ma leen wax yoo xam ne jotul financement ñii jot nañ ñaari millions ñii jot nañ ñaar fukki millions ñii jot nañ fukk ak juróomi millions ñii jot nañ fukk euh, par rapport ak marché ba na mu ak la famille kon tey président Macky Sall yëkkati na 1 milliard dugal ko ci ñun ñu jàppale tàmbali la bu commerçant yëpp lëkkaloowee fonds boobu mën na dem ba nekk fonds bu ama ama am solo boo xam ne dootuñu wuti fenn day daal di nekk un fonds pour les commerçants kenn ku nekk bu soxloo mu mën a dem non tenu d'autres préoccupations